sangub jigéen ñi ci dunya jaaratullaay sangub jigéen ñi ci dunya jaaratullaay jaara sangub jigéen ñi ci dunya jaaratullaay jaara sangub sangu jigéen ñi ci dunya jaaratullaay jigéen ñi ci dunya jaaratullaay maam jigéen ñi ci dunya jaaratullaay sangu jigéen sangu jigéen ñi ci dunya jaarati laay sangu jigéen ñi ci dunya jaarati maami sëriñ Basiiru sangu jigéen ñi ci dunya jaarati laay sangu jigéen ñi ci dunya jaarati laay njaara bisimil ilaay ma joola sangu jigéen ñi ci dunya jaarati laay

alhamdulilah sangu jigéen ñi ci dul ya jaaratulaay bismilaay ma joom ma alhamdulilah sangu jigéen ñi dul ya jaaratulaay njaara ngir ñépp ñéppoo ko gaar ñaanal jaaratulaay jaaratullaah ñaanal jaaratulaay ñépp ñépp ko gàttul sant wa bi koy boo leen siyaare ka ñaanal jaaratulaay njaara budul ko na ku sunu maam Maryama jaaratulaay ko ñépp jaaru jeyim te jaaratulaay budul ko na ku sunu maam Maryama jaaratulaay kudul ko na ko sunu maam Maryama jaaratu naa ko ñépp jaaru jeyim jey jaaratu laay kudul ko na ko sunu maam Maryama jaaratu naa ko ñépp jaaru jeyim jey jaaratu laay am jaara budul ko nekk rawdatu ma jaaratu ko ko mbuur ya daa xare duñ dem jannatu laay alhamdulillah xaay maam jaaratulaay alhamdulillah alhamdulillah karim ndegam Tuubaa alhamdulillahi sëriñ ndegam tuuba li man balaxaay mam jaaratullaay salaamun aleykum sujaaratullaay yaa doonu Mariama yow mam jaaratullaay عليكم بشجارتنا يا دون مريم يا مام جارة الله كل جيل التاريخ بطل du dem naari ngir maam ba topp sëriñ Tuuba du dem naari ngir ba ne ku daje taarix ba topp sëriñ ba ne ku kun baatu dem naari ngir maam jaaratulaay njaara ñeneen tu téeméeri junni mooy lan la loola di fanweeri ngir Bamba lillaay خليل بسجارتنا يا دون مريم يا مام جارة الله استجارتنا استجارتنا مكان سلام عليكم استجارتنا يا دون مريم مام جارت الله عليكم استجارتنا jaaratullaay jaaratullaay يكن لمنع ولا يكون لممكن بنا لا يسلم خادما ولا يكون لممكن من الله يا خادما خادما ne xadama wala yakunu li mumkinin min Allah xadama balaay sa Seex Bamba ne xadama lam yakun lema wala yakunu li mumkinin min Allah خادما يكون لنا ولا يكون لممكن من الله يكون لنا ولا ولا خادما يكون لنا ولا يكون لممكن من الله siyaare kay yërëm nit yow xol yaa ngi ru yaa ngi sun cër yaa ngi lilaay siyaare kay yërëm nit yow xol yaa ngi siyaare te xol yaa ngi ruu yaa ngi sun cër yaa ngi lillaay njara yaa jar siyaare dera bi sukku tey joxe ay xaddiya lillaay ngir maam jaaratullaay diram ti sukku tey joxe ay xaddiya man maam jaara yaa jar siyaare diram bisu ku tey joxe ay xaatiya lillaahi ngir maam jaaratulaay diram te bisu ku joxe ay xaatiya lillaahi ngir maam jaara yaa jar siyaare diram bisu ku tey joxe ay xaatiya lillaahi ngir maam jaaratulaay الإسلام تشفق المدينة هدية مام جارة يا جرس يا ريدنا يسفق تيجي أي هدية لله غير مام جارة الله درام يجي هدية مام جارة يا جرس يا ريدنا يسفق تيجي أي هدية Ilaahi ngir maam Jaaratullah maam Jaara yaa jar siyaare diram bisu ku tey joxe ay xaddiya lillaahi ngir maam Jaaratullah di raam bisub tey joxe hadiya lillahi maam jaaratullah te su su ko joxe hadiya lillahi maam jaaratulla maam jaara yaa jar siyaare diraam bisu ko tey joxe hadiya lillahi maam jaaratulla الجنات بالله يا نبي يا رب ليس تدخل الجنات بالله يا جدي يا رب رانكم سكوتي جخاي man yooqibul yàqibul saadiq bu sax ci ndigal ngir jaaratulaay nit ñi tey joxe ay hadiya jaarabul yàqibul yooqibul yàqibul saadiq bu sax ci ndigal ngir jaaratulaay jaam te su ko ko am jaara bu sonu semmal غصون سيما الجارة الله أم القديم رسول الله جدتنا جارة غصون سيما الجارة الله جارة أم قديم الرسول سيما الجارة الله أم القديم رسول الله جدتنا أجمل جارة الله أم القديم رسول الله جدتنا من جارة سورة أجمل جارة الله جارة دملن سيارة جسم مام جارة قدوة رأيت في برخان جارة الله جميل سيارة جسم مام جارة قدوة رأيت jaare ji sunu maam jaara ko dëgër mu def la fi poroxaan cey jaaratu laay jaara la fi poroxaan cey jaaratu sunu maam jaara xullu wax te def na fi Porokhane ci Jaaratulaay sunu maam jaara xullu wax dinaa def na fi Porokhane ci Jaaratulaay njaara ngir moo nu wan kunu doy na te doy na bul wara say xuban ba Jaaratulaay sunu maam jaara xullu wax kunu doy na rabul wara sayxu ban ba jaaratulaay njaara ngir moonu wan kunu doy na rabul wara sayxu ban ba jaaratulaay Cheikh Bamba nu doy abadan te mooy doonay xayru xalqullahi billaay Cheikh Bamba nu doy abadan te mooy doonay xayru xalqullahi billaay balaay sa doy loolu doy doy na Cheikh Bamba nu doy abadan te mooy doonay xayru xalqullahi billaay loolu doy doy na Cheikh Bamba nu doy abadan sa doy loolu doy doy na Seex Bamba nu doy abadan te mooy donay xayru xalqullaahi billaay doy loolu doy doy na Seex Bamba sa kuréelu doy abadan te mooy donay xayru xalqullaahi billaay ay sa doy loolu doy doy na Seex Bamba te mooy donay xayru xalqullaahi billaay Mbakke doy na lu doy doy na Seex Bamba doy Mbakke te mooy donay xayru xalqillahi billah moo nu doy abadan jëf nde yaa jëf nde yaa jëf jëf yu tax tana ku kenn amul moo di xóor bul xalqi billaay baya ay mono doy njara taaju karaamaati fii yaa nu mu koy li jaano a xaadiroog naa jaaratu laay sa dooma yor lépp yow maam jaaratu laay njaararaayu nga niil wa ca diiwaan nga ca diwaan ak ndogal ya sa doom ma yor lépp ya maam jaaratulaay ak ndogal ya faam sa doom